amna na benn malien bu Ousmane Yara Ousmane Yara da dafa dem toog ak Ousmane Sonko waxtaan ak moom waxtaanu xóot Ousmane Yara boobu mo doxoon diggante Macky Sall ak Ablaye Wade ci protocole bi ñuy woowee protocole Conakry li tax waxtaanam ak Ousmane Sonko abutirul mooy Ousmane Sonko dafa jàpp ni dafa jege Macky Sall moo tax ak amna ben sénégalais bu tudd Cheikh Diba. Cheikh Diba c'est le directeur de la wow, c'est le directeur de la planification budgétaire inspecteur des impôts et domaine la Madame natango Ousmane. koku mo waxtaan ak yépp ba kale lépp loolu mooy li xew ñoom gujaa bi biñ ñu leen di woo dafa dem ba waxtaan wi sotti ñu war a libérer nit ñi ñu woo leen pour ñu wax ni à l'intention du public pour nit ñi xam liy xew ak liy ñëw dégg wax bi loolu mooy li nga xam ni moo am mais Macky sàll ak Ousmane Sonko waxtaan wu xóot lañ seq woo xam ne mi ngi jaar ci Cheikh Diba boobu Cheikh Diba boobu ci Ablaye da Diallo la jaar ba àgg ci Macky sàll loolu moo indi waxtaan wi ñu xóotal ko ba waxtaan wi sori na lool lool lool waxtaan woowu moo indi da tey nii ñu ñu libéré. waxtaan woowu moo indi euh, Macky Sall xëy suba def report ñu toog ay fan dégguñu Ousmane Sonko wax ci waxtaan woowu moo indi moo indi voilà waxtaan woowu moo indi loi d'amnistie bi ñuy waaj waxtaan woowu am na yeneen ak yeneen yu ci bokk yoo xam ne histoire dina dem ba euh, protocole dina dina gën a leer. donc ceux qui parlent après le protocole de Rebus le protocole de Doha mun nañu dorénavant wax inscrire ci suñu agenda euh, historique le protocole du Cap Manuel entre Macky Sall voilà. et Ousmane Sonko. bu baax waxtaanu xóot a xóot xóot a xóot. mais loolu mooy dëgg gi. waxtaan euh, lan la ci Ousmane Sonko di lan la ci Macky Sall waxtaan woo gis ci politique. ku ne dafa am loo ci sàkku Macky Sall bi mu bëggee ba bëgg a fomb élection yi soxla woon na ñaar bañ koo xeex ci loolu soxla woon na Ousmane Sonko bañ ko xeex ci loolu soxla woon na Karim Wade bañ koo xeex ci loolu Macky Sall dafa diriger nguur pendant douze ans boo diriger nguur pendant douze ans da ngay am loo xam ni da koy soxla boo génnee ci nguur parce que nguur moo demee noonu Ousmane Sonko mi ngi ci kaso moom moom dafa bëgg a génn et c'est normal mu bëgg a génn Ousmane Sonko dafa def combat boo xam ne da cee rey boppam lu ne mu daj ko ci ñu nekk ci processus boo xam ne dañ ko exclure moom nar def élection yi sans moom mu war a génn. di def élection yi sans moom supposé que Bassirou Diomaye Faye gagné bu Bassirou Diomaye Faye gagné mu war a ñëw ci benn cérémonie protocolaire mu ñëw dugg ñu ne ko noo taxawal taxawal taxawal yaa la président qui passe. ba Bassirou ñëw dugg ba pare <laughs> ba Bassirou dugg ba pare Bassirou dugg ñu ni ko lempa mu jóg taxaw yaa ngi dégg mu jóg taxaw ba Bassirou toog ba pare muy soog a toog looloo nar a xew <laughs> est-ce que baax li ma la est-ce que dégg baax li ma la bëgg a wax. ba pare Ousmane Sonko Macky sàll génne ko ak Bassirou Diomaye fay génne ko du benn. Macky sàll génne ko moo gën ci avenir politique am Bassirou Diomaye Faye génne ko bokkuñu donc Ousmane Sonko intérêt yi am pour négocier dafa bari c'est ça la